cest bu ñu gisee sénégalaise ñu xam ni kii sénégalaise. defaru leen. na defar na na na nekk ñaareel mais cest à yenn defaru yu ëpp yi ngeen kii nii yëpp ñu leen tuddee ñëpp xolal ah. dañ ciy defaru moo tax yu ay biyaan ah, seeg waaw gis nga ku ci futteeku ba nekk ci ruq boobu gisee da nga naan mais effectivement kii mooy kan grand frère ah, dañuy defar defaru leen. jeex na. man la rombee. <laughs> <laughs> <laughs> non c'est que grand Assane tu honnête. kii nii toog yow noonu la mel. mais xam nga rek télé moo tax muy wax. non xam moom vraiment. je comprends mais Cheikh. on se connaît on se connaît man. ah ba ñun bokkuñu ci donc voilà Fatima. mu ngi noonu lenn li laa la indiloon tey xam naa nag euh, dinaa ñëw ci li nga xamante ne moom moo di après euh, li leen di euh, li nga xamante ne moom moo di location cheveux pour jigéen ñi ci te feetu tabaski bi. location cheveux. yokk ci location iPhone. Ah, waaw dinaa ci ñëw pour fu am photo yu rafet. incha allah loolu mënul nekk waaye. non maa ngi xaar boobu xanaa suba nga koy indi. moo am nag indil ko téléspectateur parce que li nga wax na waa torop louer cheveux wala louer iPhone. c'est c'est c'est extraordinaire alors dañuy duggaat rek ci waxtaan wi tuuti euh, laata ñuy ñëw ci Alima moom i tamit euh, mu mu mu mu mu neexalaat plateau bi un peu ak euh, ganam ñu gis ne que Assane. fan yi ñu génn dañ koy dañ koy wax xam naa dinañ ñëwaat également ci ci mbirum nervi yi mais dafa am lu ñu adopté à l'Assemblée nationale mu di le code électoral avant ñu koy adopté Assemblée nationale mu amoon dialogue bi ko jiitu euh, dialogue bi euh, ñu bëri jàppoon ne que perte de temps la parce que euh, deux ans toog nañ ko di dialoguer ñu gisee code électoral bi jàll keroog Assemblée amul changement yu mag parce que doon nañ xaar ay changement par rapport ak Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall ci seen article L29 ak l doon nañ xaar également yeneen consensus fort euh, tey est-ce que yow tamit jàppee nga jaloog boobu ñu demoon defi euh, euh, perte de temps moo tax mu jur tey li mu jur. sama bàyyi toog wax ko. papa Abdoulaye Wade toog na leen bu leen dugg ci maanaam boo boo rëccee sa baay dugg ci beneen kër avant ngay dugg mu la bul dugg boo fa duggee fekk fa bukki yeeg gaynde yi. Eh, dialogue bi loolu la doon tekki dialogue bi dafa am benn bukki te dafa leer. bi mu defee li muy def yëpp. ba pare nga xamante ni dara desu ci. pour mu teg ay xam nga ay mbuxumam. yee dafa toog ci télé bi ne leen lijjanti naa lépp xam nga mburoog soow ngi fi mais goloor yaa ngi ñëw. nice ah. yee loolu yëpp ci dialogue bi la bokk xoolal opposition bu Sénégal. barki rasulullah du Macky Sall rek lañuy xorom de. maa ngi ci liggéey bu rëy pour opposition bi opposition bi tax ñuy wax. ak opposition bi Barthélemy Dias doon wax yaa ngi dégg li ma la ñaari opposition moo ñaari opposition ñoo fi am. parce que am na opposition bu Cheikh Omar Serigne Saliou ak kii ñi nga xamante ni ñoom dañuy opposé wu ndax dëgg ba dee. Mhm. mais am na opposition boo xamante ni ñoom dañuy opposé wu pour ñu takkal leen doom ba tànk wala pour ñu xëcc leen ci état bi wala pour ñu jox leen ay marché. léegi opposition boobu ñoom ñoo demoon ci dialogue bi moo tax boo xoolee ñi demoon ci dialogue bi taawul bi ñëpp tey ñi ngi Macky wax ma kan moo ci nekkul Macky tout le monde ñi Abdoulaye Wade waxoon bu leen dem ana ñu ana ñoom Omar ñoom ñoo doon sàcc yi ay sàcc yu ñu ne sàcc lañu ba pare ñu jël leen encore dugalaat leen ci état bi xoolal dialogue amu fi code électoral bu Macky sàll mën a teg ay dina xam voté ko ah. ay dina xam voté ko parce que buñ taxawee. ci réew mu toll ne Sénégal ak li ñu maam yi xeexal ñëpp xam nga ay député ñu jël leen pour ñu dem xeexal seen askan ñu dugg ci assemblée bi naan ay man député Macky Sall laag lu Macky indi ma voté xam nga foofu ñooñu ay jinax lañu comprendre nga li ma la kenn du leen boole ci askan bi mais bu ñu eggee nag ci ku mel ne xam nga suñu yaay war a saar wala ay maam jaara faam war a ab du Mbacke Baara Dolli xaw ma. yee ñooñu ñoo tax ñuy wax opposition jamuñ ci dialogue <laughs> ñooy xeexal sénégalais yi parce que sénégalais yi tollatuñ ci ay dialogue Macky Sall na teg ay luwaam na def léppam loi yooyu yëpp wóor na yonent yàlla Mohammed mooy ñëw duma ko mais mais ci dialogue bi bu mu commencé dañoo dégg Macky Sall ne président de la République euh, euh, tollootul fu muy defee ay njuuc njaac est-ce que da nga jàpp ne que dialogue bi c'était juste pour rapprocher ko d'une certaine partie de l'opposition Macky Sall pour mu nekk président sax dafa am benn affaire boo xamante ni dafa ma dab Amérique tax ba lu bari wàññeeku ci man ci Macky Sall. muy lan xam nga kër goo dugg fekk fa góor gu aw dëgër am na soxna su dëgër su nekk ci wetam ah. dama toog di seetaan CNN maa ngi woon Nouvelle-Orléans benn xale bu jigéen gambienne américaine la bu nekk CNN introsé Marème fay Sall Nations Unies ne ko est-ce que mës nga xalaat ne yow sa jëkkër dina mës a nekk président de la république bu Sénégal mu neen déedéet sëñ saalu lool lu muy tekki loolu mooy njuuj njaaj moo ko indi ci nguur parce que musul gëm ne moom dina nekk président mais pays boo xamante ni nit ñi lañu faible ba tàllal loxo rek lépp tàllal loxo la bu fekkee ne réew mi nag lépp tàllal loxo la ku nekk fii xam loxo gën a duune fa ngay jublu loolu moo am fii Sénégal Macky lu mu def rek lu mu def rek ci deux ans yi ñu jëm ni ah maa ngi digal xale yi Sénégal yi buñ ko wuyu parce que moom kañe yi la ak jinax yi waaw ñoom ñooy daje mais bu ñu paree xoolal bukki yeeg gaynde yaa ngi ci biti comprendre nga li mu la bukki yi ak gaynde yi ñu ngi ci biti na def lu ko neex na teg ay loi am nañu woowee ay terroriste parce que ñun ñoo ko jaaxal xamoon nga na def lu ko neex dañuy ñëw dal ci kawam barke yonent yàlla Muhammad dañuy ñëw ne ne lu dafa mën a menacé ah billaay wallaay dañuy ñëw te du ñu dellu ginnaaw man li may wax waxuma ko di ko fortaatu dama ko wax parce que xoolal heure bu ma yeewoo ay xale laay nekkal population bu Sénégal laay dundal yéguma ci oto ñu may escorté aw ma baadi garde aw ma dara xoolal marchand ambulant yi laay waxal bu ma taxawee circulation bi jëm sama garage xolal marchand ambulant yi apprenti super yi chauffeur super yi chauffeur tata yi Assane dimbali ñu ci lii dimbali ñu ci lii ñooñu moo tax ma am sañ-sañu waat na def lu ko neex lu ko neex na ko def